mbokki internet yu Equivox TV nuy leen ak ziar daleen ak jàmm ci xibaar yi dañ koy dooree ak rentrée universitaire étudiant yi fekk baax ca université bu Bambey jël ab décision ni duñu tàmbalee bile année gannaaw ñaari weeru vacances yile la étudiant fekk baax ca université Aliou Diop bu Bambey jël décision ni duñu delluwaat ci yile amphithéâtre gannaaw ay at ñu tàmbale fa ay travo yu tëw a jeex ci seen kàddu Omar Mawo seen président de la coordination de l'amicale des étudiants bu université bu Bambey ñëwaat ci jafe-jafe yi ñu fay dundu lu toll ci dix mille étudiants di partage téeméeri nekk eh, teg ci seen restaurant ba fa nekk lu toll ci trois cent étudiants rekk la mën jël ñoom ñi yile étudiants jël décision du ñu tàmbale bile année fii ak gouvernement bi eh, taxawul ci seen jafe-jafe yi ñuy dund ci biir université bi ñu wax ci ab gaal gu teer fële ca île bu Canary mu nekk ab gaal boo xam ni ña ca nekkoon euh, toll ci deux cent quatre-vingts mu nekk troisième gaal gi ñu fi jota a teeru ci bëccëgu démb gi lu toll ci deux cent soixante ci ay góor ñaari soxna waaye tamit fukk ci ñoom ci seeni biir doon ay ndaw euh, muy wane ni rekk yile xale ba léegi bàyyiwuñu jël gaal gi gannaaw risque yi ci nekk yépp présidentielle 2024 gannaaw candidat yu bari yi ñu ci seetlu yeneen kanam fësaat na si mu mel ni kile di Ndella Madior Diouf ak Kiwin Mbir dañoo nara bokk ca yooyu les candidats gannaaw ba ñu wutalee fële ca direction des élections ngir mën a jël yi ci yile fiche de parrainage muy mel ni nag Sénégal li ñu fëkkoon teegul ci wàllum candidat ma ngay tàmbali bari ca yooyule parrainage nañuy desandi gannaaw ba ñu ko lànkalee kili di Ousmane Sonko ni duñu jox ab mandataire am lile di fiche de parrainage jëm ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm kile di Ayib Daffé garde des Sceaux di jox dëgg ñile di waa direction des élections moom mi leen ma ngay wax kile di Ousmane Sonko nekkul ci fiche électoral yi amul éligible éligibilité ngir mën a bokk kon mënul jot lii di fiche yi jëm ci wàllum parrainage yi wax ci ab xew-xew bu xew fële ca Mbàkke ci wàllum vol ak trafic de drogue lu toll ci juróom benn nit nañu fa jàpp gile commissariat urbain bu Mbàkke ñoo ko xamle gannaaw ba ñu xamee ni nag jàpp nan fa lu toll ci six di ab mafia bu doon yëngu ci wàllum sàcc ak dorog yile les malfaiteurs teg nañ leen loxo ba yóbbu leen ci tribunal instance bu